question man Sonko nee na jot na enfin résultat euh, analyse yi mu yóbbu woon pour ñu xool ko ci laboratoire euh, yu nekk bitim réew euh, nee na tey jii firndeel na ko ne ko dañ ko bëggoon a faat laboratoire yi loolu la génnee comme résultat. xam nga xam nga man dama naan toujours man tey su ma neexoon tey jóge fii jël benn poson ne poson bi dañ ma ko sotti woon su dee maa ko defal sama bopp xam nga lan moo am solo li am solo mooy. portewul plainte pour loolu moom moo ko defal boppam kon euh, dafa am lu ñuy wax ci droit nul ne peut se faire des à soi-même hmm. nul ne peut préconstituer de preuves loolu tubaab moo ko wax c'est-à-dire que sooy dem tribunal ngay teg nit tuuma hmm. tuuma loolu kooku ngay teg tuuma da nga kaa ne bii tuuma laa lay teg fii laa ko teg waaye doo toog yow si bopp génn sa kër jóge ci sa kër indi say bagage ne lii mooy sama firnde te loolu ngay firnde amul kenn koo xam ne ne kii ki nga ko séqal mën na taxaw li ñuy wax du contrat. li muy brandir comme amul benn valeur ci wàllum yoon. Euh, euh, xaw ma lan la brandir mënu ma ci wax dara. parce que mhm. parce que nag man dama naan toujours Sénégal dafa am lu ñu tàmm. parce que am na ñuy tooñ naan mën na yóbbu lu ko neex ci labo yi. ñu xool loolu mën na am parce que parce ki ñu xam nga taxaw bi aussi wax ci day yomb. Euh, man ci li ma gis rek laa mën a wax. Mhm. keroog ca bés ba. bañ ne diw moo ko moo ko ko moo ko tuur poson. Mhm. kooku ñu ne moo ko tuur poson. ci ñoom la bokk ndekete ci moom la bokk te vinaigre la ko tuur. Mhm. kon ñun li nit ñëpp gis ki ko tuur poobar ki ko tuur euh, poson bi ñuy wax. Mhm. vinaigre la xam nga te nitam la. kon lañ ko tuur lan la kan moo ko ko tuur ñu wax ne kii moo ko ko tuur. waaye lañ ko tuur ka ko ko tuur ak ña fa nekkoon ñëpp ne nañu vinaigre. merci beaucoup.